jéem nañu laa génn réew mi mënuñu ci yow dara ñu jéem laa nëbb mënuñu ci yow dara léegi nag nee nañu dañu lay toppandoo <laughs> waaye dama leen ne gis nga 9 kilos lóbbu gas maam jaara bi mën nga koo rey de waaye nag piir bi moom fii rek nga ko mën a amee lóbbu gas maam jaara ndax secret bi ñu taxañ ci biir fii rek la am mi ngi nii dal di kóor gaa ngi original baa ngi bu leen kenn nax nag 9 kilos bari na nag te bokkut boo leen bëggee bu baax loo bëggaas maam jaara rek ku ko am nag d'origine bi nag fii moom a vent neuf kilo maam jaara <laughs> yaa moom a vent jigéen ñi jaara Just bëggee goût jeeg bu siis moom mere stress boo koy seet si bett kaa ci ren. yow mosal ku ko mos dàkkamti ko variété punch ma dàkkal. teraanga punch laa waaw waaw li mu saf rek ku ko naan na ko xam. yow mosal ku ko mos dàkkamtiku variété yi bëgg sama dàkkal moom rek lay topp yow mosal ku ko mos dàkkamtiku variété yi bëgg sama dàkkal. ak Punch rek teraanga fii la fekk baax. aouzu billah bismillah inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah mahal balaayi wa maha amraadi wa birida tanhaadu lil ahraadi mbokki julliti Sénégal mbokki julliti diaspora asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nuyu nañ leen ci nuyu bu tedd boobu di ci jiital saa ne mboolem kilifa diina yi ne ci biir réew mi toftal ci kilifa aada yi waaye di beral nuyu ak ziar bu baax a baax internetu Ali Imran TV di leen ñaanal jàmm di leen wax ñu gën a abonné gën a partager tey gën a aimer di leen sant bu baax ci taxawaay bi nga xamante ne ñu ngi koy amal chaque émission bu ñu dugal di wax ni bu doon juróomi nit sax amuñu seenu fay ndax seeni condition lañ koy xoolee kon ñu ngi sant di leen ñaanal di nuyu bu baax borom kër gi al oustaz Alioune Sall moom it di ko ñaanal yéen gi mu am ci lislaam ji suñ borom defal ko lu kaw a njortam noonu lañ koy ñaaneele mboorom euh, képp koo xamante ne rek yaa ngi ci en Imran TV jiital ci DG soxna euh, Fatou Diallo waaye duma fàtte xorom ci cin ñooñu laa tuddee sponsor yi macha allah ñuy taaral liggéey bi ndax nag togg moom lu mu neex neex ci xorom amul rek day daal di lewet du neexee lekk kon bu togg gi neexee rek ñooma kon saa su rek ni leen ko oustaz di ñaanalee yal na si yéen chiffre d'affaires daal di yokku di woo ñeneen ñi rek ñu ñëw jàpp ci liggéey bi ndax ñooy taaral liggéey bi macha allah mbokk yi ni leen koy defalee euh, chaque vendredi. <clears throat> fii ci Ali Imran TV saa su ne ngeen ci ànd ak seen mbokk seen xarit eh, Serigne Mbacke Seck bëgg fàllu international eh, tey nag ñu indi leen invité bu mag ngeen ko yàgg topp suñu plateau bi di nga gis nga fi jëmmam muy Serigne Djily Abdou Khader Samb macha allah di borom xam-xam eh, Sénégal gi yëpp naw loo xam-xamam waaye rawatina rek ak yaram ak i tegginam Euh, macha allah muy suñu kilifa waaye saa suñ ko dalalee rek dañu ko yombalal ku ne xam ne ni jot dafa ñàkk waaye lislaam gi ak liggéeyal sëriñ bi jaral na ko ko kon ñu ngi koy kontaanee bu baax sa njiili ñu ngi lay ziar bu baax di rafetlu sa teewaay fii ci plateau bii di kaay leerlu euh, ñu la bàyyi la nga nuyoo ko mbokki inter yi nga xamante ne ñu ngi lay seetaan aoudu billahi samil alim min ashaytani rajim bismillahi rahmani alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi zawi ridwani wa tamkin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum eh, salaam sëriñ Mbacke Seck bëgg Fallou maa lay nuyu bu baax. Eh, di la ziar Euh, di am mbégte bu baax di ñëwaat ci émission bu am solo bi. nga tudde ko leerlu. di nuyu borom kër gi muy al oustaz Alioune euh, Sall. nga mm-hmm. xamante ni ñëpp ko xam ci àdduna bi. muy borom xam-xam waaye di ko lewet. dëgg fi mën koo joxe. Mm-hmm. Mm-hmm. nga xam ne defar nañu euh, ci jullit ñi macha allah. di nuyu baax suñu xarit suñu wëllare sëriñ Cheikh Dieng. loolu la ñuy nuyoo sëñ Amdi Moustapha Ñing. di nuyu nag directeur bi nga xamante ni mooy Soxna Fatou waaye di nuyu. nuyu nag technicien yi ko demee sëñ Abdoulahi Ba mm-hmm. Mm-hmm. waaye du nuyu mboolem mi nga xamante ni ñooy internetu euh, Ali euh, Imran mm-hmm. nga xam ne góor ak jigéen mag ak ndaw euh, mu doon nag maanaam chaîne bu am solo boo xamante ne nii njëriñ yi daal bari na su ko defee nag kon ñu ñaan suñu borom mi dara tawul ñu tàmbali waxtaan wi ci bismillahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin mu am solo lool tom muy al islam wa shabab muy l'islam nag ak jeunesse ndaw ñi. jërëjëf sëñ Diéli ci nuyooyu tedd yu am solo yooyu macha allah mm. ni nga ko waxee defoon nañ fi plateau. Mm. internet yi di ñaan deuxième partie bi. Mm. ndax rafetlu sax xam-xam. ak jëriñ gi nga leen di jëriñ ni nga ko waxee ñuy waxtaanee euh, jeunesse bi nga xamante ni macha allah Sénégal nee nañ li ëpp ci euh, askan bi jeunesse bi ñoo ci ëpp macha allah te ñu war a waxtaanee jeunesse bi seen taxawaay. ci lislaam te sëñ njiili nag daa mel ni thème bi fi mu ñëwee waxtoom la ndax dañuy wax daa jooy ñu ne ko loo jooy mu ne dañ maa waxtu jotaguma te ku ne xam te ni ñu ci weerub décembre macha allah jeunesse bi wax dëgg yàlla ñu ci bëri xëy na lu ci bëri xamuñu ko ba tax na bu ñëwee rek dañuy àndandoog riir mi mm. kon war na ci yéen ñi nga xamante ni ne borom xam yi ngeen yeewaat leen ba tegaat leen ci li nga xamante ni mooy yoon macha allah rabbi ni nga koy waxee rek ñu war a waxtaanee mm. jeunesse bi ak islaam waaye sëñ jili bala la ñoo dugg ci loolu rek dañuy wax waxtaan tuuti ci li nga xamante ni gis na ni xew-xew la muy kilifa yi nga xamante ni dañ leen di fàttaliku ci bis yu mel ni ci date yu mel ni ci weeru décembre yi nga xamante ni ñu ci bëri daawuñu ko bëgg te mën nañu bëri lu baax rek mu lañ ci jublu ak ci jeunesse bi bañ a bañ a dem ci leneen te loolu day mel ni jar na ñu leeral ko tuuti rek ba lu ñoo dugg ci thème bi seen jëlee jërëjëf euh, sëriñ euh, Mbacke Seck nga xamante ne loolu dafa am solo mm-hmm. ndax euh, suñu yonante bu sallallahu alayhi wa sallam mu tedd boo dafa xam ne man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dalika a l iman ba taxoon ne képp koo xamante ne gis na ci naka sadul noonu na ko dindi ci loxoom leen su ko mënul mu reeteet ko ci làmmiñam su ko mënul na mu mettali ko ci xolam léegi nag ñaareelu tomb boobu nag ñun ci lañ toll yàlla defal nañu tawfeex ñuy wax ci rajo ak télévision yi léegi nag saa bu ci 28 décembre da ngay gis ku tedd ku màgg Mm-hmm. koo xamante ni euh, kenn la woon ci leeri Sëñ Tuubaa yi mm-hmm. waaye nekkoon xalifaam lu toll ci fukki at ak juróom-ñaar 17 mm-hmm. ans Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu anhu ci la génnoon àdduna waaye nag euh, ñu jël dat boobu nag di ko fàttaliku euh, dañuy teeral leeral ni moom bëggul woon loolu moom Serigne Saliou ndax bi mu nekkee ci ak dundam képp koo xamante ni ñëw na jël dat boobu di ci fàttaliku kilifa dala koy tere Mm-hmm. loolu nag ma ngi ko jëlee ci sëñ Touba. Mm-hmm. jëlee ko ci magam yi. Mm-hmm. yu tedd yi. tax ñu dañoo am at at mii ñu am réerul bañ koy jeex. moom la fi bi bàyyi euh, saxaaba yi dañ ko doxal waaye suñu sëriñ na Ahmadul Xadim moom da cee fiiroon ba nga xamante ne kenn mës sa gis mu date ci milaadiya mooy way ngay gis ama jëy bam sachin yooyu rek ngay dégg ñooy su jili nga xamante ni hmm. ñooy seetaante leeru seen bopp atum milaadiya waaw ñu xam la mooy lan xam bu dee milaadiya mooy atum grégorien bi milaad yi milaad mooy ganesik àdduna moom lañuy euh, jàpp ni ci la yonent yàlla Isa gane sewoon àdduna mm-hmm. léegi nag bu dee hijriya nag mooy at mi yonante bi gàddaaye mm-hmm. bee di atum jant bi bii di atum weer yi yépp suñ borom reconnaître na ko waaye bu dee ci wàllu diina nag mm-hmm. ñun atum weer yi moom la ñuy doxal léegi bu ko defee sëriñ Saalixu moom mi gane si woon àdduna ama jal sachin muy atum junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak ñett mille trois cent trente-trois ci gàddaay yonante bi fee ca Jurbel Euh, di dëppoog euh, li nga xamante ne moo nekkoon mille euh, neuf cent quatre vingt mille neuf cent quinze. mille cent quinze waaye waaye nag moom date bi nga xamante ne mooy hijriya mm-hmm. moom moom la reconnaître oon ndax daf doon waxtaan ak Serigne Saliou Touré rahmatullahi alayhi ne ko sama juróom ñaar fukki at ak juróom quatre-vingt-quinze ans mhm. te jamono boobu boo ko seetee ci milliards yi quatre-vingt-douze ans la kon mhm. boobu reconnaître ko mhm. ndax at mu ne dañuy rawante euh, fukki fan wala fukki fan ak benn ñaari at yi fanweeri at yi ne ñu rawante fanweeri at ak ñett maanaam fanweeri at yooyu ñu rawante am at siècle bu ne ñu rawante ñetti at moo tax bi bisu fii kahfihim salaasa miatin sinina wasdaado tisaa asxaabul kahfi biñ nekkee seen xuntuma dañ faa def ñetti téeméeri at wax naa la at mu ne dañuy rawante eh, ñetti at trois fois trois mm-hmm, trois fois trois neuf waaw muy wasdaado tisaan mm-hmm. tisaan mm-hmm. mooy ñeent nga alxuraan dafa wax ni wala bisu fii kahfihim salaasa miatin sinina mu ñi ngi sax ci xuntuma ñetti téeméeri at yàlla mu atu jant bi laa wax mu ne wasdaado tisaan atu weer yi laa wax dégg nga loolu maanaam de siècle bu ne dañuy rawantee ñetti at léegi nag sëñ Saalix Mbàkke mi génnoon àdduna euh, fukki fan ak juróom-ñaar ci zulhijja ci zulhijja waaw ci ci tabaski biñ tabaskee ba dellu si ci la génnoon àdduna mhm. ama tam buñ ko doon kii sax waaye waaye buggul woon moom kii ba waaye mhm. bis bi mu gane si àdduna laa mhm. mi ngi gane si woon fukki fan ak ñeent ci zul qaada donc zul qaada moom lay olof di wax diggi tabaski diggi tabaski moom moo ubbi al ahsharul xurum mhm. bii si yonent bi lim alxuraan daa wax ne inna mhm. iddata shuhuri inda allahi isna ashara shahran mhm. fi kitaabillahi yowma xalaqa samawati wal arda minha arbaatun xurum léegi nag zul qaada la muy diggi tabaski zul xijja tabaski mu muharram mhm. di euh, tamxarit mhm. léegi nga dem nag ba rajab moom muy moo nekk juróom-ñaareelu weer ñoo bokk ci weer yi gën waaw muy moom moo la mu tudd moo tax ñu tudd euh, rajabul fard muy mhm. nday koor mooy weer wi ñu dëgmal la léegi nag sëñ nag ci fukki fan yi ak ñeent ci la gane seen àdduna ci diggi tabaski muy euh, layla la guddi goo xam ne dafa leer ba mooy clair de lune boobu di am waaye guddi àjjuma laylatul jumaa moom ci la gën a ci la gën a àdduna sëñ Tuubaa nag bi ko ko xibaar bi kii mi ngi ko moo ko wax sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana mooy ba fóori ji mag jooju xam mhm. ne moo bind am minaxil miskiya fil xawaarixil mbakkiya mhm. waaye moo bind irwa un nadi min aad bi xibbil xadim mhm. déggoon arab bari xam-xam ma lu bari ci histoire sëñ Tuubaa bi mu ko waxee sëñ bi sëñ bi dafa maas ko ci kaw maf'ulun mhm. bihi la ko def xam nga mhm. loolu yéeme la mhm. ndax bu doon kii rek euh, mubtada da ngay def asaalixu wala nga mu ne saalixu waaye asaalixa léegi nag ndekete mi ngi junj bayt bi ne ci nuuru daare ni wahab li al ilma saxiixa wal amala asaalixa alladi yukammilu al amal nga xamante ni kon moo gën a gudd fan ci doom yi sëñ Tuubaa yi mhm. waaye bis bi nga xamante ci la gën a siiwoon àdduna moom la la reconnaître ñu di ko def mhm. moo tax euh, Lamp Fall Gueye chaque mhm. année moom la def kon ni képp ñuy déglu vingt-huit bi na ko bàyyi na ko bàyyi xam ne bu ci dee dàkk ngërëmal sëñ Saaliu du ko ci am ndax da ko daan tere gisoo maam Thierno moom bi mu mi mi ngi génnoon àdduna ci weeru koor maam Thierno Birahim Baye borom daaru waaye sëñ Fallou moo ni nañ bàyyi date boobu ndax bisu naqar la mhm. ko indi ci bisu mbégte mhm. nisfu Chaabaan nisfu Chaabaan ci la sëñ Tuubaa daje woon ak maam Thierno Fandar mhm. léegi sëñ sëñ euh, Mouhamad Lamine euh, Baara Mbacke Baara Mbacke waaw moom beneen date la woon ñu waaye nag euh, dañ koo indi ci ñaar fan ak juróom-ñett ci jumaa dal uulaa muy rakkaati gàmmu sëñ Fallou Kazu Rajab Kazu Rajab ci lañ koy gën a seen àdduna sëñ Abdou Lahad mhm. ñaar sama mhm. turandoo sëñ Abdul Xaadir ñetti fanu tamxarit tamxarit sëriñ Suhaybu Mbàkke juróomi fanu koor kon lan moo tax rek ñu bàyyi dat boobu ñëw topp ci biir rek te ba borom bëgg mhm. mhm. yi nañ bàyyi ma riirandoo nañ bàyyi ma riirandoo tey tey fekk li nga xamante ne moom la ñu di ko def bu dee 24 bi ak 31 bi a tee doy waar ndax feetu beneen diine la beneen diine la te te ñun bi yonante bi dikkee rek amuñu droit topp kenn kenn ku dul moom wa in tutiiuhu bi dafa doy sëkk nga xamante ni képp koo xamante ni rendi na ci euh, la rendi euh, képp koo xamante rendi na ci tam am na daanu yàlla gu rëy ndax yonte moo wax ne waylul liman zabaha li ghayrillah mhm. xur bu xóot ca safara ñeen la ko am dafa rendi te yàlla tax kon seen jëli ñu naan garaawul Euh, comme ko dañuy téye xale yi ci kër gi ñu bañ dem fenn lay lay wu yàqu la xam nga noo war a def mhm. def nii ñu def woo sa njaboot ne leen am na ay feet yu ne suñu kanam mhm. suñu yoon newu ci da mhm. ngeen ko yemale guddi ga ko jiitu yemale ko guddi ga ca topp na ni selaw bu bu bu waxtu tëdd jotee nga yóbbu ñëpp ñu tëdd xanaa yili foo leen léegi loolu loolu loolu loolu loolu loolu kon kon kon tey <laughs> kenn xamul lu mu doon sax lay boobu kenn xamul la gis nga wax naa la sax ñi ciy def ay jàng <laughs> mhm. ak i cant ñoo ko gën a sa lëjal ñi ciy def bis ñi ciy bis nga xam ne tey 28 bi 28 bi tey ñi ci jàpp ci cant ci sant sëñ Saliou bëri lool loo ci yëngal loo mhm. ci yëngal mhm. yaa ngi xeex yonante bi di jàppale beneen beneen beneen. kon képp ku daan tàntal Serigne Saliou ci 28 bi daal seen mhm. yi sax yu bari yooyu sax bëgg ko woon. Mhm. li waral lii dafa gis gannaaw euh, euh, doomi Sëñ Tuubaa ku ne ñu wutal la bis. waaw moom ak Sëñ Murtada gannaaw ñoo fi mujj ñoom ñu ne bu leen kenn wutal bis bu bis bi ñu gën a seen àdduna nag mën nga leen a fàttali. Mhm. def plateau comme ni. wax seen jikko. wax euh, seen i liggéey ndax liggéey yu rëy la def def naa ci moom xasida boo xamante ni mhm. mi ngi toll ci juróom benn fukki way mhm. maa ngi ko tuddee naylul masaalih fi mhm. madxi cheikh saalih maa ngi ko tàmbalee hamdan li rab e, bil wara e, muctil maziyaati ala humamin jawadin di atiyaati ala alxalifati najli alqarmi sayidina xadimi xayril wara jaali dujunnaati a cheikh saalihin almbakkiyi wuldi xadimi afdali nnaasi min maadin wa min aati sammaahu xaadimu xayril xalqi waaliduhu bi saalihin yaa lahu xadan wa xibtaati fa saalihun saalihun barrun aqu thiqatin wa iffatin wa sajiyaatin karimaati ba ñëw ci liggéeyam daara yim sanc inna naraahu yuhibbul ilma yaxdimuhu bima ladayhi min amwaalin wa amwaatin taalimu qur'ani rabbil arshi mihnatuhu bana katatiba maxaaqal jahalaati bana madarisa taaliman wa tarbiyatan hada kasiran ila rabbi samawati min ha njurul ngot wa ngeejaan jàppnal walagal dooka wa ñaaru wa habban lil hidayati minal katatibi xelkom wa hiya akbaruha fiha kasirun min amalin ajibati fiha yahun min katatibin wa mazraatin masajidin wa raciyatin kasiratin فيها تلاميذ رباهم وعلمهم كل الفنون شريعات حقيقات xam ni moom loolu moo doon liggéeyam waaye ku bañoon a nasaraan la nga xam ne kon loolu beneen yoon sax dañ cee a def waaw kooku de faaw ñu def ci plateau boo xamante ni téere beeg yëpp dañ koy a ko lu war la ndax bëri daanaka bëri li mhm. ne moom ci def vingt-huit la bëgg mhm. ko préparé woon mm-hmm, mm-hmm. bari ci xaw mm-hmm. xamante ni ci sama teewaay ak ñoo xamante ni sax bi ma ciy waxtaan woo nañ ma ne ma suñu bàyyikat dañ ko jàppaloon bi waaye sëñ Saaliw dañ koo tere woon kon nag nit ki du tere dara bañ ko ba noppi nga ñëw di ko defal dañ bàyyi nasaraan yi dañoo nasaraanu de ñu nekk tubaab bi ni ñu leen topp c'est trop <laughs> c'est trop ñun dañoo am suñu atu bopp nañ ko nañ ko foog damu nekk nii koor doo ko def ci janvier wala ki ramadan rek kori nag shawaal rek gàmmu nag rabiul awwal rek tabaski nag zul xijja gi nag 18 mhm. safar rek. Mhm. sëñ mhm. Touba 10 août la génnoon. waaye waaye doo gis ñu di ko màggal 10 août. gis nga bu ko bu bàyyi woon noonu. taalibe tubaab bi 10 août lañu koy màggal. te tubaab bi rek lañu fonk. tubaab bi rek mooy seen loolu faaw ñu waxtaanati. xankay nga xamante ni. ñu jàngalaat nit ñi lan mooy calendrier jullit bi. bañ ko war gën kaa gën a xam ba nga xamante ni moom ku ci nekk dana leer sa bopp. dañ koo sàggane benn bis dootul la réer. ndax ñu bari sama classe gi ñu bëri. idda jii boo ko ci deful du baax. azaka ji boo ko deful suñu weer yi du baax ah asaka yi am na koy jàpp ci fin d'année bi nii bu duggee janvier bi rek ba pare uh-huh. doo ko def li ci gën a yéeme nag uh-huh. boo fekkee yaa ngi koy jàpp ci grégorien bi boo dundee fanweeri at uh-huh. dana am at moo xam ne doo génne asak loolu ci gën a garaaw moo tax ñun suñu at yii Seydina Aboubacar mu sell ma doon ko doxal Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Ali ak Seydina tey ak lu tax duñ ko def dëgg la moom bu fekkoon dafa nëbbatoon yi di ko jeex ñu mën a wax waaye mi ngi nii man saa boo ma laajee ma wax la saa boo ma laajee ma wax la. waaw mhm, mhm. fi mu nekk nii tey jii nii mooy fukki fan ak ñeent. Mhm. ci euh, weer wi nga xamante ne nii. moom mooy. Euh, jumaada saaniya di maamu koor waaw suba la fukki fan ak juróom. ñuy waajal rajab. am ko. jërëjëf sëñ Jili ci loolu entre entre parenthèse la woon rek boo xamante ni dañ ko cee ubbi woon. ngir leeralal ñi nga xamante ni ñooy màggal kilifa yi ci yenn dat yi. kon ni ko sëñ Jili waxee rek képp koo xamante ni daa nga. màggal Serigne Saliou ci 28 bi nga bàyyi ko dem dàkk bis ba mu gën a jamono fukki fan ak ñeent ci digg tabaski mm. nga ko cay màggalal mm. yaakaar naa loolu mooy li gën mm. bañ a sànk seen i jëf kon lu am solo la maasàllaa na ko ñëpp xamee noonu sëñ jili dañuy tàbbi ci waxtaan bi mooy taxawaayu ndaw ñi ci ci lislaam muy jeunesse bi maasàllaa ni ñu ko waxee rek sànk ci weer wi nga xam ne buñ ci diggee duggee daanaka euh, jeunesse lislaam bi daanaka ñuy ëpp ci ñi màggal weeru yeeg di doxal <laughs> te ni réerte la macha allah kon si njëriñ mm-hmm. comme ni ñu ko waxee sànq rek da ngay ñëw xuus ak ñun ban taxawaay mm-hmm. la jeunesse bi mm-hmm. war a am ci l'islam te dañuy wax ni l'islam ji jeunesse la gën a soxla seen njëriñ wallaahi macha allah nga kàddu go nga wax mooy aynul mawdu bi mooy dëggi dëggi waxtaan wi l'islam jeunesse bi rek la soxla bu ñu ko leeralee di nga xam ne noonu noonu rek la demee xam nga mu la ñuy wax asanawaatu zahabiya mooy at yi nga xamante ne dafa gànjaru ba mel ne or fi nekk nii euh, euh, euh, maanaam sag ndaw mm-hmm. ci nga mën a amee àdduna ci nga mën a amee àllaaxira mm-hmm. suñu borom ci boppam moo ko leeral mhm. eh, ci suuturum doo xam ne allahu alladi xalaqakum min daafin mhm. summa jaala min baadi daafin quwa mhm. summa jaala min baadi quwatin daafan wa shayba yaxluqu maa yashaa wa huwa al alimu al qadir yàlla nee na man maa leen bind ci lompañ doomu aadama buy soog di ñëw du man dara liir lay doon liir lañ koy wax fa mu tëdd du fa jug luñ ko defal mënu koo defal boppam ba mu yàgg mu nekk perantal ba mu yàgg muy raam ba mu yàgg muy dox di daanu ba mu yàgg muy dox ba yàgg nag mu daal di nekk nag waxambaane mhm. bu dee jigéen nga ni jànq mhm. léegi nag lool nag mooy xuwa waaye nag muy dem di dem ba mu yàgg suma jaala min baadi quwatin daafan mhm. wa shayba léegi nga daal di delluwaat nag daal di màgget naag sax mel ni xale bu ndaw <laughs> daal di bijjaaw mooy shayba yàlla mu ne yaxluqu maa yashaa wal alimul ne maa ko ki lépp waaye tam maay ki am kàttan moom la sëñ Abdoulaat firi firi bu yéemee ci discours bi mu mujjee de foog di nu wan ne àdduna du dara. Mhm. Euh, loo gis rek ci àdduna dafay jeex euh, sëñ Abdoulaye dafa wax ni euh, àdduna lu gàtt la. Mhm. ndax lu dare fi barab yem fi barab lu mu doon gàtt na. Mhm. waaye li àdduna di gàtt gàtt nit ko gën a gàtt. ndax doomu aadama boo gis. fi la fekk àdduna. te fi la koy bàyyi. waaye li doomu aadama di gàtt gàtt ak mën a ko gën a gàtt. ndax doomu aadama boo gis. bu dikkee àddina tële na. ba waaye bu bu fi yàggee. tële soog di fi jóge. daal di wax ne li mën soose di gàtt gàtt nag moo yor àllaaxira mhm. te àllaaxira yemul fen mhm. kon lu dee si foofu xaju fi lu dee si caaxaani xaju fi lu dee si mooy toxal may wax. Mhm. loolu sëñ Abdoulaat mu mujjee wax. ci discours boobu nga xam ne ci kori la ko def. Euh, ci diggi tabaski. li ci gën a yéeme fukki fan ak ñeent bis bi sëñ Saaliw yu gën a si àdduna ci la wàcc liggéey. <laughs> moom sëñ Abdoulaat ñoo bokk benn euh, maanaam bis bi sëñ Saaliw wàcce. mooy anniversaire am ci wàcc liggéey. daan wax ne suñu borom de euh, dafa yéeme lu ko neex def waaye léeg mu def loo xam ne man daf may yéem. man mhm. ndax man ak euh, Serigne Saliou mi benn nit looñu loon mu def fi ñaar sëñ Abdoulaye daan na wax ñoo bokkoon nag dëkk benn kër fii sëñ Saliou nekkoon. foofu la mhm. sëñ Abdoulaye dëkk njëkk a dëkk. Mhm. bi mu jëlee xilaafa gi nag fii garage yu Sotrac la fa la ñëw dëkk. xam ni loolu moo leen teqale. léegi nag jeunesse boobu nag. Euh, dafa doon loo xamante ni mooy lépp. ndax dañu wax ni ci la nit ki di am kàttan physique xel mi tamit ci lay ci lay mat dañu wax nit ki ni bu amee fanweeri at ak juróom lu mu xamul rek ci moom la bu demee na ba am ñeent fukki nag xel mi day nàcc day mat sëkk nga xamante nii ku mu naxul doo ko nax doo ko nax wata <laughs> suñ borom euh, dàkku ko di ci yónni euh, ay yonant yonant yi cëpp xam nga ñoo yónni leen nag lu jiitu lool ku demee ni yonte yàlla Isa <laughs> fanweeri at ci la ko yónni bu demee ni yonent yàlla yaxya mhm. wax nañ sa Idris fukki at ak juróom ci yenn euh, borom xam-xam yi mhm. waaye nag yi ci ëpp nag ñeent fukki at mhm. su ko defee nag kon foofu nag ci la euh, waxambaane bi di profito di def li nga xamante ne ni moom moo ko war ndax bu ko weesoo rek dootu ko mënati gisoo bu dee jàng sëriñ bi dafa wax ni euh, jàng baax na ci ñëpp waaye ci ndaw la gën a jàng baax mu ne ndax njàngu xale ne dafa mel na rek nga fekk ciment bu tooy. Mhm. nga garaate ci. nga mhm. xoo nga bind ci. ma mhm. dootul dañ leen ma gis ay dates yoo xam dañ naa la 1800 nangam. bañ ko fa defee ba tey dañu. dëgg la 1800 yàgg na. dëgg la téeméeri at jàpp ñaar <laughs> téeméeri at waaye tey nee na njàngum mag nee na mi ngi mel ne nga bind ci ndox. booy teggi muy far booy day dégg sax euh, ñu naan la man kat mu nekk nii mënatumaa jàpp dara. boo seetloo sax yow li nga jàng mokkal ko ci sag ndaw. waaw doo ko passé day day day wuute yi nga jàngoon démb nii mm-hmm. mokkal mm-hmm. day day day gaaw a dem mm-hmm. léegi nag su ko defee nag euh, kàttan googu tamit ci ngay profitoo nag jaamu ci yàlla liggéey ci moo tax dama lay indi rek juróom-ñaari bayit yoo xamante ne sëriñ bi daf ko indi ci tasawudu sixaar tasawur dañ ko yàb ba di ko romb nii waaye ni mu riche ak ni mu bëree njëriñ wax ni yaa ayyuha sibyaanu laa tastaxilu an huda wa bil ulumi mu nekk nii ñaar yooyu moom moom kenn mënta jaar fenn ba am li mu bëgg te tënkuwoo ci ñaar yooyu sëñ bi digle waaw mooy yéen ñi nga xamante ni yéenee ndaw ñi bu leen soxlawoo mukk mukk mukk lu dul ak njub jub mooy lépp jub bu ko xale bi defee dana mucc àdduna dana mucc àllaaxira dana mucc itam ci yi nga xamante ni moom moo ko wër ci àdduna mm-hmm. beneen bi ci topp mooy xam-xam xam-xam mu nekk nii xam-xam mm-hmm. dañ koy misaal ku am xam-xam ak ku amul xam-xam mm-hmm. misaal mu yéeme bi ngi mel na ku dund ak ku dee moom loolu yéeme na ku dee moom moom moom bokkatul bokkatul waaw <laughs> différence boobu nag lañ am ñoom ñaar moo tax mu ne yéen ndaw ñi bu leen soxlawoo lu dul jub ak li nga xamante ne ni moo di euh, xam-xam nga lii xew ni yëpp ñu di ko jàmbat réer rek ku dañ réer am am xam-xam yéen yi doo ci dugg doo màggal 24 doo màggal 31 décembre doo dem ci boîte nuit yi doo dem ci tefes yi doo jël sa gaal yi naan da ngay dem Europe ak da ngay dem daa ñu si bëri nag waajur yeeg wala ni nga ko waxee rek yi yombalal dañ naa ndaw li ah bu tolloo as bi moom mën mën na mën naa foo daal loo xamante ni mu ni ko waxee rek nasara dañoo nasaraanu bu mu ëpp xale daal feetu wàññiwu ko dara mën naa feetu ba pare dem nekkaat ci yitteem gis nga fo boobu hmm. yonent yàlla yaxya xam nga ko yonent yàlla yaxya moom ak yonent yàlla isa ñoo bokk benn at hmm. ko ci sa doomu tànta nga wante hmm. ibnal xaala sayyidatuna Maryam la léegi moom bi mu nekkee ndaw ni xale yi di fo mhm. moom dañ koy gis mu beru rek ñu ne ko yow ñëwal ñu fo mu ne leen binduñu nu ngir fo maa xalaqna sama wal na ko ma baynahuma laa'ibin Ah, law law aradna an nattaxisa lahwan lattaxasnaahu min ladunnaa in kunnaa faa'iliin mhm. yàlla nee na asamaan ak suuf ak li ci bi diggante bi mhm. bu bindu ma ci ay fokat yàlla mun a fekkoon ne fo rek lañ ci jublu mhm. ñi ma ñi ma ñi ma malaaka yi bu ma leen tàggatoon ci fa ñoo na fo ñëpp <laughs> law aradna an nattaxisa lahwan lattaxasnaahu min ladunnaa in kunnaa faa'iliin waaye fo taxu ñu fay jub fi nekk nii mag du fo xale du fo jigéen du fo góor du fo fo moom képp ku koy def yaa ngi tardé tey boo ko mhm. moo tax sëñ bi lim ci teg mu ne fastaghilu bil hifzi wa tilaawa mhm. wajtanibu majaalis ash-shaqaawa mhm. mu ne na ngeen soxlawoo lépp li ngeen jàngati dee leen ko mokkal te lu ngeen mokkal ba noppi dee leen ko nafar ndax mooy tax e, mokkal gi sax waaye gis nga lam ci teg mu ne na ngeen moytundi ko jataayi texee di joxaatu way texee di fépp foo xamante ni fowukaay la ku ku nar a tekki ëllëg du fa dem moo xam arène bi ñuy bëree dañ ciy jaar sa digg ba moo xam stade bu ñuy footballé moo xam moo xam boîte de nuit yi la foofu foofu moom képp koo xamante ni nar naa am cër ci yàlla bu rombee sax du fa taxaw xama laa di fa dugg waaw nga xamante ne loolu mooy seen liggéey seen jili ndaw yi nga xamante ne ñoom waaw daanaka loolu mooy seen profession loolu boo waxee rek ñu ne dañoo bëgg a teral suñu jaay waaw loolu loolu lay yàqu la ndax ñiy teral seen yaay bari nañ lool te te jaaruñu foofu. gis mm-hmm. nga fi mu nekk nii bari bii sax mënoon nañ ko organiser wàññiwul dara. Mm-hmm. ci ñett yi. Mm-hmm. fexe ba waxtu yi ñu koy def du doon waxi waxtu julli. fexe ba góor ne jigéen ñi buñ jógee ci arène bi duñ jaxasoo. fexe ba ñoom ñiy bari. ñu sol yu yiw. ndax euh, awray boor mi ngi tàmbalee ci jubbox. ba ci oom bi mën nañ ko organiser. ba pare mu bañ am dóor foofu laa jëm si. Mhm. boo ñëw am dóor. Mhm. yow kay yow kay leeral nga ko. Ah. te xam nga dóor boobu yonent bi nee na bépp jullit bu jàkkaarloo moromu jullitam. Mhm. saaga ko. nee loolu soox la. fisq génn topp la nee na nag bu ko dóoree nag nee loolu kufru la. weddi yàlla la. loolu dafa garaaw. weddi kufru. dégg nga li ba. dëgg la nee na boo jàkkaarloo sa morom jullit xuloo nga saaga ko. Mhm. nee loolu fisq la. waaw loolu sëñ Jëri jeune Soudan mi ni kuy wax ak sa morom sax te saagoo ko. day mel ni day mel ni waxoo wax bu leen saaga seen i waajur. saxaaba yi ne ko saaga ku koy def mun a xànkay mu ne képp koo saaga waajuram mu fayu yow yaa saaga sa waajur. Mhm. muy jikko ju na jikko ju ñaaw arab di ko wax sab wala chatma. Mhm. bu ko defee nag mënoon nañ ko organiser. bëre boo xamante dañuy dañ ndax yonante bi def na ko bis am ci mm-hmm. ponkal moom da ko woo ci lislaam mm-hmm. eh, mu lan wax ko mooy sa euh, firnde mm-hmm. yonante bi ne ko ndax su ma bëree yow daan di nga ma gëm <laughs> mu ne ko waaw yonante bi yëkkati ba ca kaw teg ci suuf waaw loolu mënoon na ne bañ a dóorante mais bëre bëre bu civilisé charte yooyu ma la wax suñu suñu aadala suñu loolu mën naa ne su ko defee bu dee football moom leneen la bu dee musique moom day wowal xol moom musique waaw musique dafay dafay wowal xol. Mm-hmm. musique moom am na àjjana. Mm-hmm. waaye dañ ko dafa bokk yi ñuy tere fii ci àdduna. Mm-hmm. moom ak sàngara. ndax bu dee àjjana daf ci am yoo xamante ne nii dañ koo tere fii dañ la ko autorisé xam nga fii ñeenti soxna lañ la euh, autorisé nga yem ci. lu mu bari bari. fee ay junni ngay am. fii dañ la tere sàngara. fee dafa am sàngara. waaw sëñ Jëli bu dee musique bi da ngay gis jeunesse beeg wala rab bi. waaw naan bu fekkee paroles yi day yeete. musique ba wàññiwul dara. déedéet mën nga yeete ci beneen anam yi ñuy def mhm. du ko daa xayeete mhm. du ko daa xayeete mhm. mais mais mais musique moom wa min annaasi man yashtari lagwa alxadiisi li yudilla an sabilillah yàlla da koo tere fi mu nekk nii wa shu'araa'u yattabi'uhumul ghaawuun alam tara annahum fi kulli waadin yahiimuun moo tax loolu yooyu yëpp alxuraan da ko tere. gis nga yenn ci yenn ci borom xam-xam yi tamit. Mm-hmm. duñ ñu réeral jeunesse yi. Mm-hmm. ndax yenn saa yi dañuy jël yu mel noonu di ko layal. Ah, ba jeunesse bi nga xamante ni ñoom lay topp. day ah. jàpp lu lu yella xam nga fañ nekk la rek. Mm-hmm. daf ci am loo xamante ni la bu la wëree. Euh, dañ ne ku ëmb sa sànqal. Eh, sa kese waaw loolu kese la. al oustaz mii gis naa ko bis muy seetaan mu am ci benn chaîne télévision buñ ko invité woon. waa ji bëgg koo defal ay gisaane dafa bañ. ne ko man loolu loolu du ko joxe loxo bi itam mu bañ. am ma ñëw ma sañ ñu ko. sañ ñu ko ndax bañ fa jugee rek ci seen ba ca kilifa yooyu yàlla ko yàlla yërëm sax. dafa ñëw ne moom nañ ko defal. daf ci am yoo ni moom dégg naa ko bis moom oustaz mu ne bu fekkente ne da ngaa yore lu am solo. Euh, am na loo xamante ni bu waddee ci doo doo doo doo doo sëgg di ko rek dem. xam nga xam nga lay lool mu la lay léebu noonu. daf ci am yoo xamante nii. Euh, dimension booy toll. Mhm. détails yi du la du du la mhm. mais musique moom dafa baaxu bu dee àjjana nag. Mhm. yeneen bi moo wax sëñ bi inna silbul jawahir dafa am euh, garab gu ne Touba. gu ne gu ne koy Touba. ne euh, Touba shajaratun fil janna. xarasaha wa nafaxa fiiha min ruuxi. E, garab la woon dafa ne àjjana. yàlla moo ko jëmbat. ci kattanam. wal ruuxam. ne na fi mu nekk nii waa àjjana yëpp euh, fruits yi ñuy jëfandikoo foofa lay bàyyi ko mhm. yëre yi ñuy solit fa lay bàyyi ko mhm. waaye nee na day am jamono suñu borom yebal benn ngelaw mhm. mu ñëw euh, xob yi lay yëngal ñuy laalante nee na musique bu neex ci génn musique boo xajul àjjana ndax xajul àdduna ndax neex mhm. dañ xaar kay ba dem foofu mhm. <laughs> ba defee déglu musique boobu mhm. mais bii moom dalay fàttaloo yàlla day wowal saxam ba defee nag moom mën ngaa déglu alxuraan mooy li gën a kawe ci li ñuy déglu ak di ko jàng bu dee ñun murid yi mën nga jàng say xasaay bu dee ku bokk ci beneen kër ña nga fay jàng-jàng ña war nga dégg sikar su neex si waaye musique moom moom moom buñ la waxee dëgg dafa fecc nag gën a tee doy waar ndax fecc ku yiw du ko def moo xam góor moo xam jigéen. Mhm. léegi na am na dañuy tuddee yàggaayu. Mhm. loolu moom wàññiwul dara. waaw ndax dañu wax ni Jaafaru Saadi xam nga ko. Mhm. moom euh, moo Seydina Ali ñoo bokk abu Seydina Abu Talib. c' est Abu Talib. moom bi yonante bi ubbee Xaybar. ba toog nga xam ne guerre bi jeex na gañ gañe na ko. dafa jékki-jékki rek gis euh, Jaafar di ñëw. yonent bi na ñokket dajeeg moom moo mhm. loolu lu rëy la mhm. daal di koy nuyu akolaat ko foon ko mhm. fii foon ko fi daal di koy wax ñaari kàddu da ko yow Jaafar da nga maa nduru ñaar lu jiitu lool sax dafa ne man de mbégte mii ma am ñaari mbégte yi xawma bu ci gën a rëy ubbi gi ma suñu borom ubbil xaybar ak dikk gi nga dikk yow Jaafar muy ñaar moo xaar ko yeneen ñaar daal na ko yow da nga maa nduru jikko nduru ma mbind mhm. na bokkoon na ci gën a nduru yonante bi mhm. bi mu ko waxee rek yëf yi rëy ci moom neex ci moom muy mhm. fecc ci kanamu yonante bi ay yonante bi wax ko dara dafa ree rek am <laughs> ni ah. feccul nag pàkkaar ji dafa dafa yàggaay rek ñenn ci murid sax di tuddee dukat <laughs> waaw dukat yooyu wàññiwul dara loolu moom wàññiwul dara na nga jàng ba yëf yi dugg la nga am noo def ni loolu wàññiwul daal li ñuy bañ mooy pàkkaar yi bu dee ci jigéen ñi di génne seen cër ku yiw daal du fecc du ko du fecc du fecc waaw mm-hmm. sëñ jili ba tey mm-hmm. ñu gis ci lislaam gi bu lay jàngal histoire dañ lay wax ni sunu ah, moo xam ci saxaaba yi wala yenn suñu mag ñu baax ñi bi ñuy jug di liggéeyee lislaam mm-hmm. ay ndaw lañu woon te léegi bu ñu leen bu ñu leen misaal di leen waxtaanee da ngay jàpp ni ñooñu kat dañoo dem ba dooni mag doo a jóg ngir liggéeyal islam te ñu ci bëri bu ñu leen lim ba ci soxna jaare mi waajal màggalam gi sax bu ñu la koy jàpp ni am màgget la woon waaw te loolu hmm. lu ñu war a leeral jeunesse bi ne ñooñu hmm. ku ci nekk ba ngay jug hmm. di porte drapeau bi islam jeunesse ci maanaam jeune nga woon waaw sax dafa am solo ci waxtaan wi euh, xam nga euh, boo ko tàmbalee ci yonante bi ñu ko suñu borom bi yónni ñeent fukki at la am nekk ñun ñëpp weesu nañ ñeent fukki at ñeent fukki at euh, xale yi dañuy jàpp ni ci barab yooyu rek la ñu war a dem lu ñu réaliser dara ñeent te ñeent fukki at ndaw la beneen bi ci des saxaaba yi ko toppoon Seydina Abu Bakrin mhm. fanweeri at ak juróom-ñaar la am mhm. muy dugg ci lislaam mhm. te tam moom moo magoon Osman moo magoon euh, moo magoon tam euh, kii Seydina Abu Bak Seydina Abu Bakrin waaye Seydina Omar te Seydina Ali muy dugg ci lislaam ñenn ñi ans ñenn ñi ne 10 ans moom Seydina Ali waaw Seydina Ali mhm. dix ans mhm. ci gën a bari ci li ñu wax dix ans mhm. xare Badar moom bokk na ci li mu rey ci ci ci ci yéefar yi xam nga ñaata at la amoon ñaar fukki at ak ñett vingt trois ans moom la Seydina Ali am Ali am bi muy xeex ak yéefar yi rey ci lu bari fi nekk nii bi ko yonent bi di wax na tëdd ci lal boobu ngir xaar ko foofu xam nga ñaata at la am boobu mi ngi am ñaar fukki at ak ñaar 22 ans. 22 mhm. <laughs> ans la am. Mhm. jaloore jooju ba mu koy def. waaye gis nga ki nga xamante ne mooy Usaamatu. Mhm. ibnu Zayd ibnu Xaarisa. nga xam ne moom la yonent bi mujjee yónni. ci ab xare. xam nga ñaata la amoon. boo ñëwee ci li ñu gën a jege. muy Sëñ Tuubaa mi woote yoonu murit xam nga ñaata la am. fanweeri at. bi muy woote yoon yi. 30 30 30 30 atum junne ak ñett téeméer. ak benn 1301 ci gàddaayante bi dëppoo 1883. ci la woote yoonu ci la samp yoon yi ci lay samp yoon mi ngi mi ngi am fanweeri at. Ah. ki ko njëkk a gëm muy sëñ Adama Gueye. Mhm. mi ngi amoon 39 ans moo ci gënoon a mag. Mhm. ba ma gën a sëñ Tuubaa 9 mhm. waaye fi nekk nii maam Thierno. Eh, sëñ Tuubaa ba daanaka mën na ko jur ndax mage ko fukki at. moom borom daaru borom moom ñaar fukki at la am bi bi bi sëñ bi di woote yoonu murit. Eh. nga xamante ni. ñoom euh, bu bu dee borom gaawoon nag. Mhm. bi ko sëñ Tuubaa di jox Daaru Salaam xam nga ñaata at la am. 19 mhm. ans. 19 ans amul sax 20 <laughs> jox ab dëkk. waaw sëñ Tuubaa dëkk bi rëy bii di Touba ak mhm. li coow lii bari bari. bu koy sànc xam nga ñaata at la am. fanweeri at ak ñett. 33 ans la sëñ Tuubaa am bi muy sànc dëkk. 33 ans fi mu nekk nii ngund sax am na ñu am 40 ans mënuñu ko am. Ah, lu xew rek ñu ne gouvernement gouvernement gouvernement. waaye seen jëlool maa ngi si jàngatee ni kon ah. teel a teel a responsabilité teel a jël responsabilité ci jeunesse. day dalay dimbali ci sa àdduna. sëñ bi seexal ñépp bi mu leen di seexal daa daanaka amuñu 40 ans daaw am ndax ndax ndax ci jamono boobu ci ngay ci ngay mën a def li nga mm-hmm. bëgg a def. te dalay seexal ber la jox la dëkk jox jox la dëkk nga gor dëkk. Mm-hmm. di fa di fa ni ko nit ñi foogee ni déedéet. dañ mm-hmm. doon yii lañ fa doon def. jàng. jàngale. Hmm. jaamu yàlla hmm. liggéey. yooyu yooyu la sëñ Tuubaa sance yoonu murit boo gisee yoonu murit euh, da bi mu daw ko ni hmm. raw ñëpp loolu kese la sa jamono ji moom da gis ko am 40 ans te naan ñun jeunesse bi du sanc kër daanaka moom daal dundam dundam ñi moom daa xaw a yow doo defal dara sa réew te lu lu lu xew nga jàmbat mu nekk nii gaal yi ñuy jël ak lañ cay fay ama sànq yaa ngi koy junj lu ci ëpp way jur yi nag ñoo koy def ci biir way jur yooyu nag jigéen ñi. Mhm. nekk nii borom kër gi day ñëw ci kër ñu nëbb ko lépp. gis naa ci ñoo ko ñu ma jege ñoo xamante ne bi seen doom eggee ba wootee ci la boroom kër gi yéeg yëg ni dem na. Mhm. te seen yaay yi lépp ñoo ko organisé. ñoo dem jaay seen takkaay. Mhm. ñii dem teggi seen i nat. ndax liñ ci jublu rek comme doomi diw ji tekki na. tekki na man lu ne daj naa ci kër gi dama war a tekki déedéet. sëñ bi dafa waxoon. ne euh, wërsëg. moom nekkul ci yooyu. ndax suñu borom moo wax ne wa ma min daabatin fi lardi illa mhm. ala allahi risquha mhm. wa yalamu mustaqarraha wa mustawdaaha kullum fi kitaabin mubin mhm. mi ngi ko wàcc sootu xóot soo defee sëñ bi ci biir téere boobu nga xamante ne dañu wax ni maam Thierno la ko euh, bindaloon ñii ne euh, sëñ Mbacke Bousso comme ci mën a doon muy kon kaatiman da ngay dégg mu ne ci biir laa tashtaghil bi rizqi is rabbul wara mutakafiu rizqa alladi yataallamu kon kaatiman waaw yow a ne rek ga boo nekkee ci li nga war a ne suñu borom moom moo mooy méngoo si rek li sëñ Saalix Mbàkke mu tedd moom waxoon mhm. doomu aadama boo gis ñaari biir la am mhm. biiru boppam bi mhm. ak biiru bàmmeelam mu ne biiru boppam bi bu mu ko itteel ndax li ci war a euh, dem suñ borom bi ko bindi indi ko àdduna moo ko warlu dana ko def mu ne sa biiru bàmmeel benn na la itteel ndax loo ci deful loo ko fekk mais lii yëpp àdduna la rek dugg ci gaal yi dee ci loolu xaru donte ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaaw suñu borom yërëm leen leen waaye waaye bu ñu bu ñu toogoon nii mhm. wallahi lax buñ bu ñu liggéeyee fii dañu am li ñu bëgg am mhm. beneen bi ci desit mhm. ñu jaar ko ci yoon jaar ko fi nga xamante ne fa lañ ko war a jaar ba am visa wala nàngam ñu dem ah donte sax oh, ànduma kenn waxuma ni réew mi mi ngi dox ni mu war a dox déedéet nga xam maa ni metti na te itamit yëf yi demee na côté. Mhm. doo am sa oto rek am sa kër. Mhm. am sa njël ne mhm. lépp baax na. am na koo xamante ne nii bu añee. du ndékki bu ndékkee du reer. métti na de. loolu xam naa ko bu wóor a wóor. am na koo xamante ni 1000 francs te na ko dëgg la. nga xam ne réew mi metti na la te li ko waral moo di yëf yi dafa demee côté dafa demee côté te alal ji daf ne li kay laa yakuna duulatan bayna al agniyaa minkum yàlla dafa bëggoon alal ji kenn bu ko bu ko kenn denc nay nay wër te ñu am Abdourahman xam nga ko daal moo borom daal waaw yërëm bu la daan jànga risaala ba toll ci azaka xam nga lu mu lay wax mhm. azaka yi alal mhm. da wax ni bunt bii na nga ko jàng bu ko jëfe xam nga loolu lu ko jàng waaye bu ko jëfe wax jullit dëgg dëgg dëgg du denc alal ren ba déwén borom bi jullit tam yi nekk fii soxla ko te joxu leen mm, maanaam waroo xaar ba at mi jeex nga doo génne asaka déedéet dëkk bu mel ni Sénégal gii mhm. ndóol gi fi ne ngay denc alal ren ba déwén romb junniy nit yoo xamante ne amuñu amuñu dépense dëgg la de dëgg la de moo tax ñi jël seen euh, xaalis bi denc ko ci banque bi boo mm-hmm. liggéey suñu borom na leen ko laaj dëgg la de lool lool lool lool sëñ Mbacke sëñ Jili tamit waaye moom beneen baat bi baat bi ñu jël rek nga xamante ne ndaw ñu bëri sànq na leen muy baat tekki ah, nekkul baat bu ñu war a defaraat ndax ñëw ñi dañ jàppee tekki mooy kër oto ak xaalis boo def sa poste moom lañ jàppee tekki ba ñu ndaw ñu bëri ñoom loolu leen def seen bopp moo ko firi mm-hmm. tekki baat boobu xam nga tekki lu mu doon. Mhm. fexe ba doo mooy yàlla loolu mooy tekki. Hmm. <laughs> ah sëñ ko. loolu fexe ba boo boo mooy yàlla. mooy sa juróom-ñaari cër yi. mooy baatu tekki mooy tekki. àdduna fii. Ah. dañ dañ fii romb rek. xam nga nu mu demee. Mhm. nga jaar ci autoroute bi APS mhm. bi. jëm Dakar. àdduna noonu la mel. te di nga dem ba ci diggu diggu autoroute bi nga taxaw fa di dafa tabax kër. loolu di ko def. déedéet da ngay romb rek dem sa. dem sa àdduna noonu kese la. dañ fiy romb rek dem. kon nag boo xasee nag ba ñëw na nga na nga def sa kem kàttan. ba li nga ci war a def yëpp nga def. ba te sëñ Tuubaa ku musaana ñëw gën a jamono. day sange say cër. am na nag bu bu musabaatul ashra boobu. maa ngi koy joxe fii na ko jeunesse bi di jël di ko def. musabaatul ashra. ndax loolu boo ko dee def maanaam bànneex yi ne ci da koy lakk. dañ ciy boole tam li eh, kii bi nga xamante Euh, moom mooy euh, jaalibatu maraaxib jaalibatu waaw jaalibatu moom da ci da cee mhm. aay lool mhm. moom la sëñ bi bindoon mi ngi ko bindee maa yombaax mhm. daal di koy jël euh, sànni ko ci ndox di ko testé ba xam suñu borom nangu na comme déet ne bu ko nangoo dana ñëwaat ku ñuy wax soldat bu ñuy wax Moussa moo gis mbindum arab mi ne moom rek la gis mu di ko fa bind indil ko waaye sëñ bi nee na moom li muy def ci ci taali bi di ko tarbiya moom la téere bi di def bis yëpp baax na waaye bisu àjjuma ci gën mhm. bi kitaabati rabbi rabbi kul na mhm. mutaaliin li wajhi rabbi mhm. tekki mooy loolu su ko defee nag wërsëg nag la suñ borom boo booy dikk daf ci am juróom yoo xamante ni nit ki da koy indaale suñ borom eh, signé na ko xam yàlla mu signé loolu rek am léeg-léeg nag mu def ci coobareem waaw wërsëg ci la bokk ci wërsëg waaw kon tekki ak wërsëg moom mook dañoo jaawale baat yi gis nga doo toore ne croiser les bras ne yàlla noppi na waaye da def ay sabab waaye fi mu nekk nii doo doo am mukk lu yàlla dogalul ci yow. Mhm. bul gis nit nekk milliardaire nga ni faw ma nekk mhm. milliardaire. Mhm. ni ko nit ñi tam foogee ci liggéeyam ndey ba tey du benn. liggéeyam ndey mooy waaw loolu tamit mooy mooy mooy euh, am ndey joo xamante ne nii. ju baax la ju tegu ci yoon. loolu rek doy na liggéeyam ndey. waaye dañuy gis koo xamante ni milliardaire la. te ndeyam la la yàlla xam doy na dëgg la <laughs> ah loolu noonu la demee <laughs> nit ñi fi ñu ko foogee mhm. fam nekk mhm. ñaar la yoo mm-hmm. xam am na ñuy ndeera sax la kon nasaraan si ah, lan ah. am duñ ko am <laughs> duñ ko am waaw ñoom sax ñoom cas particulier la ñoom mhm. àdduna lañ tànn yàlla jox leen ko loolu foofu na la nit ñi juube moo tax ñoom buñ leen xemme mukk te metti na de feeñee fan jëm ah, metti na lool mhm. te moo moo tax ku xam dara mhm. dañ ci wax dax ne laa tashari dunia bi oxra mhm. man baa nuuran bi du jaa fa sayantam ne bul jënde sa àdduna bi mukk àllaaxira ndax képp ku ku jaay leer jënde ko ak lëndam dana ko réccu parce que ci biir jeunesse boobu dafa am bayit bu am solo bu sëñ bi wax ci juróom-ñaari bayit yooyu ma la tudd sixaar dafa am ni fa kullu man baadara waxta sigari jilal huda saraaxa waxtal kibari képp koo xamante ni bi nga nekkee ndaw da nga gaaw jëm ci ak njub kon dafa contradictoire bu baax ak ñi naan boo nekkee jeune na nga foo ndax boo demee ba nekk mag boo fowul woon boo fowul waaw baari day di xëy déedéet déedéet alifan nuska wal ibadata wal xal wata tiflan wa hakada nujabaaw bu say Mouhamadou Bousari moo ko taggee yonante bi nit ñu baax ñëpp ci seenu ndaw lañ baax waaye doo jékkiwun ba nekk mag mhm. soog di baax mooy li nga waxoon fii sànq mhm. maanaam ñu ngi ñu baax ñoo ñu ngi dégg ñëpp defe ni mhm. dañoo dem ba nekk payi màgget ba xob bi daas wala ay maire déedéet ci seen ndaw lañ lañ lañ def li ñuy def seen ndaw ci la def li ñuy def yëpp léegi nag dañ leen a trompé ba defee ak doxalinu xam nga rek leen bu ma ko mën a wax ñëpp di ko dégg bëgg seen xel ne feneen pour ñoom ndax bu ni ñëpp dee jaar ah ñoom niñ ko bëggee duñ ko amee noonu moo tax nañu jël ñu rek mhm. euh, ci musique baag ci musique sport baag nangam ak yooyu mhm. waaye sànq yaa ngi koy junj tamit ñi nga xamante ne ñoom la yàlla dogal ñu jiite réew mi tey si amuñu ci part de responsabilité ndax da ngay gis jeunesse bi nga xamante ni amuñu benn profession mhm. jàng ñu métier waaye tey bu ñu duggee ci politique bi rek ànd ak ñu jiite réew mi rek di xalam ñeneen ñi rek tàmbalee léegi li am bëgg jeunesse bi nga xamante ne nag moom mi ngi liggéey guddeeg bëccëg suba ngoon poosam yi dara mënu cee ne est ce que loolu tamit bu yàggee du jur bu bo nit ki bu amul taw xit dëgg est ce que du jur ci xolam ba mu mën a def leneen loo xam te ni ah, waru kaa def xam mhm. nga li euh, euh, mhm. ni day leen dimbalante azaka jooju sax mu ne bu mhm. yooyu rek la doon bañ euh, fi mu nekk nii dañu wax ni li gën a gaaw a may xaalis nit ci jamono bii may wax ak yow ñett yi lañ wax drop dañ ci yàlla musal communication bi ak li nga xamante ne nii mooy politique bi. waaw te moom politique bi moom da ñëw léegi. léegi ñu jox la kii nga dëpp kees. léegi yow ko xamante ni sa salaire dafa limité. Mhm. ngay tabax immeuble milliard. milliard loolu lu mhm. dawal oto cent millions. Mhm. yaa ku ñëw ku la xool piis la ba sa nga yëgati million. million jox ko waaw ah, xam nga loolu loolu doy waar la. te ku àndut ak yow daanaka li gars yi di doo ci mus doo ci loolu mhm. bu ñu ko defee de seen pexe du jox. Mhm, mhm, ah, nga xamante ni kon loolu. Euh, sëñ Mbacke. Euh, réew mi daal war naa dressé waat. organiser waat ko. ndax fi mu nekk nii suñu borom tooñul kenn. nit ñee ñu tooñ. waaye suñu borom fu mu fi wàcce moom noppi na ci yow noppi na ci yow waaw mu xamante ni wa aataakum min kulli ma saaltumuhu mm-hmm, mm-hmm. wa in taoddu nicmatallahi la tuxsuha mm-hmm, ne ñun ñëpp cent pour cent lañ kenn ku ne nag ak euh, sa sa mbir suñ borom defal la ko noonu waaye ñun ñëpp a yam ñu borom tooñul kenn wa ma mhm. rabbuka bi zallaamin lil abid mhm. yàlla nee na jomm naa di tooñ sama jaam mhm. moo tax moom suñu borom mooy ku baax ki albarru rahim loo gis mu yàqu doomu aadamaa ko moo ko yàqu zahara al fasaadu fi l barri wal bahri bimaa kasabat aydi nnaas nit ñi ñoo yàqu waaye suñ borom lépp la defar moo tax nag suñ jiit yi euh, dañoo war a defaruwaat man diingatuma kenn contre kenn waaye tey bu ñu bu ñu l'islam daal. Mhm. bu ñu ko doxalee appliqué ko ni mu mhm. waree. Mhm. jàmm rek ci la ñu kon du jar nit ñi di dem. di jël gaal yi. du jar ñuy agressé. ñuy agressé du jar ñu ñuy defi leneen. waaye waaye daal bu fekkoon alal ji nii seddal nañ ko ni mu waree woon. liñ ci war a def ñu def. ku war a faju faju. ku war a jàng-jàng mhm. xotti ay yoon ku bëgg a dem dem dem ak jàmm di ka mhm. jàmm mhm. képp koo xamante ni yaa ngi eh, liggéey eh, am am mën a am foo liggéey képp kuy commerce gis kuy jënd ah réew day day waaye waaye yooyu moom bu amul xanaa coow xam ne tamit beneen bi tamit euh, Euh, internet bi ak média bi am nañ ci part de responsabilité ndax li influencé jeunes yi dafa bëri ndax foo tourné bu fekkoon foo tourné gis ku mel ni sëñ Jili mu toog di yee jeunesse yi hmm. yaakaar naa ñëpp dinañ góorgóorlu ci islam waaye média bi lu ci ëpp foo tourné daanaka lu lay réer rek ngay gis ñoom tamit am nañ ci part ñi nga xamante ni ñooy directeur programme yi war nañoo dimbali waat jeunesse bi ci loo xamante ni moo leen di gëmloo liggéey gëmloo leen jaamu yàlla macha allah lii mhm. ngay tënk nii lii ngay wax ni mhm. dafa am njëriñ mhm. dem na ba ci sketch yi ñuy la na nga xam ne léegi mag ñeeg ñëpp koy seetaan lañ cee wane sax moom bu fekkoon tegoon na ci yoon waaye wàññiwul dara waaw maanaam scénario bi la ñu war a seetaan mhm, mhm. seet ñu xam ku demee ne mhm. euh, oustaz Alioune Sall mu bind scénario mu def ko boo ma nit ñi dañ ciy jànge ragale ci yàlla jeunesse bi faaw ñu jàngal leen muñ muñ waaw mais muñatuñ. muñatuñ nit ci moom lu ko metti mu manifesté. waaw loolu yàq yi fi amoon rek. <laughs> dëgg la ñëw yàq sa alalu réew. loolu du muñ. maanaam fi mu nekk nii man Euh, téléphone kenn mun laax na mu doon. Mhm, ci mhm. oto bi lañ koy fekk. te sëñ bi muñ gi nga njëkkee. muñ gi nga xamante ne moom lañ mujjee. waaw maanaam li ñu njëkkee moo toj beeg yàq gi muñ gi lañ mujjee. ndax fi mu toll nii ñëpp toog nañ te du muñ buñ ko defoon. Mhm. Euh, mu mu kii daf ci am loo xamante ni yow doo jàpp ni alalu kenn la. waaye jàpp ni yow sa alal la. moo tax euh, mu waatin am solo. patriote. patriote mooy gis nga anarchie bi am Sénégal. kon patriote sa njële du xeex. du pël du sànni du saagante mooy bëgg sa réew. Mhm. mu nekk nii euh, tubaab bi nii ñu mel nii. dañuy mhm. politique xeex def leen leen kii. Mhm. waaye bu ñu demee ba intérêt général am. ñoom ñëpp dañuy def dañuy def nii. bu ko defee euh, Sénégal gi waruñu woon a dox sax di tuur ndox ci mbedd mi. wala nga lekk jël euh, xolit ya. sànni wala nga naan ndox jël sase ba. sànni mhm, mhm. da koy def sa poche mhm. boo gisee poubelle nga def màggal gi rek maa gis lu xoromu waa ji moo mujj taxaw ci buntu jumaa ji mbuus yooyu euh, sa ko sim joxe woon waaw waaw bu buñ jëlee daal yi euh, génne seen daal yi sànni mhm. poubelle yaa ngi nii de mhm. man leen yéen poubelle yaa ngi nii zéro di ah. ngeen ko jël def ko ci mujj gi ñuy mujj gi ab habitude la habitude la maanaam maanaam passerelle yi nii mhm, oto day day da ngay dox zéro ñu yéeg waaye dañuy ñëw jéggi oto bi fel leen <laughs> euh, bu dee lu gën a doy waar na ci jeunesse bi mooy li xew mooy mooy euh, kii yi ñuy dawal ñaari kii. sa yi rawatina jakartaay cag-cag yi jakartaay cag-cag yi. waaw xam nga xam nga bu ñii dawal oto ñëpp jàmbat nañ dëgg la de. da ngay jékki-jékki nit ñi rek. ñu traversé la ñu ñëw traversé mhm. dañu wax ne chaque jour que jafe bis bu ne. Mhm. Mhm. Sénégal am ko ci dee. chaque jour laa la bis bu ne. am ko dee ci ci jakartaay kon kon kon loolu lañ jëlee saa suñu xel ba xam ne dëkk bi fawda bi fi am anarchie bi. jéggi na dayo jeunesse bi rek moo koy def. bu ko defee tam bi tamit. bokk na ci lu am solo. ku mat a euh, dem kër. Mhm. dañ la taxaw nga dem kër. mais mhm. léegi ñëpp a seetaan. ñëpp a seetaan yow daal yaay gis sa benn waay fële. Mhm. yaa tànn fa la ñëw la neex rek. waaw te mag ñi dañ naan de boo matee say seen itte yëpp dañuy jëm ci utal la. xam euh, naa ni sa nji yooyu sax faaw ñu ñëw ci si thème. waaw faaw ndax li ñu war a leer waaw li ñu war a leeral dafa bëri buntu boobu sax bëgg naa ñu dugg ci buntu labat. ba ci tey lépp nu ñu koy doxalee loolu moom buntu boobu fii wax ak yow ñu baree baree bari ñu ngi toog sëy ñu. sëy ñu divorce yi nag. divorce yi kenn xamul nu mu toll. waaw dañu wax ni at mu ne nangami junni divorce. naa nga mi junni dinaa ko fexe indi ko exactement. Mhm, incha allah <laughs> xam ni loolu képp mun loolu ke dañ ci ñëw seen ji du yàgg rek. fan yii dañuy faaw ñu dugg ci loolu def ko par épisode. incha allah tàmbalee ci labat geeg ci ceetal geeg lépp. ci mën a wax dafa bari. waaw trop dafa bari lool trop trop trop te bu ñu xoolee maanaam réew mi moom jeunesse bi la ñu wax Sénégal la fi maanaam macha allah jeunesse bi dañu fee bëri. xam nga ñu ngi ci euh, ñaata 14 millions. 14 millions waaw daanaka li ci yëpp ñoo nee na 60 pour cent ay jeunesse bi lañ kon ñooñu chaque jour dañoo war a nekk rek ah, ci di waxtaan ak ñoom ci lu leen di jëmale kanam ah, maasàlla li am solo la ba pare tamit xam naa foofu la ñuy daanelee incha allah ci ci waajur yi ñoom ñu war a góor góorgóorlu ndax waajur yi ci bëri mm. dañuy bàyyeeku ëllëg ñu jël seenu njaboot mm. teg leen ci yoon ba bu ëllëgee ñu mën a dem dañuy sàggane njaboot gi ba bu njaboot gi tolloo ci jariñ leen ñu bëgg ñu jariñ leen te du mën a ne ndax boo xoolee mm. loolu même tubaab bi mi ngi koy def waaye lu am solo la mooy mm. waajal sa sa sa mm. njaboot <laughs> ba bu ëllëgee bu ñëwee mën a <laughs> tegu ci yoon rek daal dem suñ mag ñu baax ñi sax ñoom noonu nan lañ daan def loolu a amaat conscience waaye pas di liggéey di yàq rek lii nga wax nii mm. am solo lool xam nga dañuy gis man day am doom ba fure bu daara mm-hmm. man damaa yore daara mm-hmm. waaye liñ ciy jànkuwanteel mm-hmm. jàmbur bu nekk fële yoonam bañoo ceene mooy ñëw naan da ngay sàngi sa doom bu ko yóbbu daara yóbbu ko école la jël le huit huit huit mhm. Mhm. su demee nag ba xale ba nag doy waar mhm. ñoom dañuy dañuy fatu fële fatu waaw bàyyi la xale bàyyi la xale bi waaw nga xamante ni kon euh, yeewu daal dafa jot gis nga suñu borom dafa doom boo boo xamante ne foofu fëluwul képp koo xamante ne da ne ci sa bopp moom da lay seetaan ak sa bopp rek mhm. waaye waaye képp koo xamante ni jël nga sa bopp jébbal yàlla mhm. suñu borom téyel la sa lépp mhm. kon jeunesse bi nañ leen jàngal dañ leen yar nañ leen liggéeyal suñ Saalim Mbàkke mii loolu la doon wax ne suñ ci waa saa boo ko jébbalaan euh, xale nee na ñett yi bu lay jébbal xale ci fer yi ñett yi la lay wax nee na na nga ko jàngal na ko yar na nga ko liggéeyloo mu ne jàng bi mooy tax mu xam liggéeyloo Euh, léegi nag euh, mën na nag euh, yar bi nag mooy tax mhm. mu jëfe lim jàng dañ ci waa ñett yooyu la doon yéen tamit maanaam nga ñu ko maanaam ñu leen ndokkeel sax ci tari bi nga xamante ne doon nga ko amal ci le 10 bi passé muy daara Masalikul Jinaan ci technopole bi daara Hilm wa Tarbiya hmm. macha allah yéen hmm. tamit ñu hmm. askan bi war a jox bopp ngeen ndax boo ñëwee ñu ne internat i sëñ jiile la muy fayeeku daa seer te bu demee ca école ñañ bokkul ak diine nangu faa fay xaalis bu bëri duñ fa lekk duñ <laughs> fa naan duñ fa fanaan loolu doy na waat trop kon war nañoo taxaw war nañoo war nañoo <laughs> taxawaat bu baax euh, maanaam waa si suñu bët xam ni mm-hmm. incha allah mm-hmm. dinañ di nga dinañ gën a yaatal yeneen dem sëñ jiile incha allah xam naa ni moom moom faaw faaw ñun ñu nangu la tuuti ci ci bokk bokkal ak lamp fànn duñ la nangu waaye dañ lay bokk ak lamp incha allah rabbi xam naa dañ lay nga tàggatoo ndax ñu jeexoon na ñu tàggatoo rek incha allah ba hmm. ba beneen yoon incha allah jërëjëf jërëjëf nga xamante ni dafa am continuité hmm, hmm, istimrar nga xam ma lii dañ cee cof rek xam nga waxtu yi muy kiyee moo tax mu fu ne rek ñu laal fa waaye benn bu ci ne rek mënoon nañu ko yaatal ba ba fii ñu mujjeen yi nga xamante ni jeunesse ak liggéey jeunesse bi ak sëy ak sëy eh, jeunesse bi ak jàng jeunesse bi ak yar ak yar waaw yooyu yëpp ay buntu la yoo xam naa ne buntu yooyu yëpp suñ jili faaw ñu ñëw ci yaa kay day da koy da koy mate mënta ñàkk day indi détails yi mm, détails yi waaw mm-hmm. lépp sallallahu mm-hmm. alayhi wa sallam dafa leeral lépp alxuraan leeral lépp ndax bu jeunesse bi bëri na si ñoo xamante ni mm-hmm. maanaam bonuñu waaye dañoo ñàkk am peut teg ci yoon ak ñàkk a xam kese ñàkk a xam rek ndax sénégalais moom xeetu nit lañ yu baax yàlla moo ñu defal lool dëgg mais mais nag mm-hmm. euh, kon yàq ga dafa yàgg nag. dafa yàgg waaw ndax mm-hmm. ndax xam ma rek mm-hmm. mu ne solo wax lépp. ñëpp di dégg. dëgg la waaye ku demee ne euh, Oustaz Alioune Sall moom mag la xam na ci lu bare bari. moom liggéey na ci lu bari. kon xam ma kon waxtu wi jeex na. dañuy daal di tàggatoo foofu. di sant ba di kontaan ndax lii liggéeyal suñu borom la. ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. doon mawidati lxasanati wa jaadilhum billati hiya ahsan euh, bu ko defee di nuyuwaat mboolem internet yi. di nuyuwaat al ñaanal mm. yàgg fi te wér sëñ mm. Cheikh. Mm. sëñ Amdi Moustapha waaw ah, di technicien yi macha allah sëñ Abdoulahi Ba mm-hmm. directeur bi Soxna Fatou Diallo yow it ñu lay sant bu baax lii ak yaatal la rek ah, ah, ndax euh, moom macha allah borom xam-xam nga mm-hmm. mënoon nga ko defal sa bopp waaye da ngay bëgg rek mm-hmm. yëf yi gën a yaatu man ñi ngi sant ñëpp di gën a di leen doxaat digaat daje incha allah balaa yàgg ci yeneen i tomb incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf euh, sëñ Jëli Abdou Khadir Samb yooyu ñu ngi lay santaat bu baax di la ñaanal suñu borom gën laa kàttanal gën a yokk wér-gi xéewal gi ak xam-xam bi yàlla yokk sutura yi wax dëgg yàlla ci sag mbaax ci sag oyof ci liggéey gi ngay liggéeyal islam bi jaaree ko ci liggéeyal sëriñ bi wax dëgg yàlla mënoon ah, nga ni xat nga lool macha allah ndax boole daara ak ci télévision ak rajo mm. wax dëgg yàlla jot ci yow mënoon naa jafe waaye lépp rek nga xam ne liggéey lislaam la ak yéen ndaw ñi macha allah kon ñu ngi leen ñaanal nga yàgg fii ndax yàgg fii sunu njëriñ la ni nga ko waxee di santaat bu baax al oustaz incha allah nga xamante ni ku ne xam ne ne moom lii rek moom la bëgg ci tele bi mooy diine ji maanaam am doole. Hmm. ndaw ñi yeewu ñëpp hmm. rek ne ci li nga xamante ni moom la hmm. yàlla santaane ak DG Soxna Fatou Diallo di nuyu bu baax euh, Abdoulaye Ba ni nga ko waxee nga xamante ni ñoo ne ci technique bi. Euh, Serif euh, ak Pape Doudou ak Omar ñëpp bàyyiwuñ kenn ñu ngi leen di ziara bu baax di leen ñaanal ñoom jàmm di ni nga ko waxee suñu am di tamit di suñu wóolare nga xam ne démb rek ñu ngi jokkoo moom ñu ngi koy ñaanal yàlla xam naa ni plateau yi di ñëw rawatina ci poroxaan beeg yooyu faaw ñu dalal ñu ñëw <laughs> incha allah rabbi di santaat bu baax internet yi nga xamante ni lii tamit boo amee njëriñ ñooma ndax bu buñ ko defoon it te xooluñu ko yaakaar naa njëriñ la du bëri waaye ko ci nekk yaa ngi jël sa connexion nam toll di ci topp émission yi di ko rafetlu ku ci mel ni Serigne Cheikh jànq nekk bi États-Unis nga xamante ni saa émission jàllee da koy topp moom it ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla defal ko jàmm sëñ kër Ndoye dëkk ba Malika waaye nekk commerçant ne ca Caajaay moom it da koy topp ñu ngi koy ziar bu baax tamit Euh, di ko di ko di ko di ko ñaanal mm. sëñ Xaadim Mbaw di mécanicien nekk ba Casamance mm. moom day topp euh, day topp émission bu baax moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla mm. yàlla defal ko jàmm rek ak mboolem képp koo xamante ne rek yaa ngi topp émission bi bàyyiwoon la ñu ngi lay ñaanal di rafetlu bu baax di wax ni ngeen gën a abone nag te gën a partagé te gën a aimé di wax ni wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin yàlla ngeen mucc yàlla ngeen am jàmm yàlla ngeen mos ngeen jëf Fini le stress. Que vous soyez jeune fonctionnaire, entrepreneur ou même immigré, le groupe Mac Building vous aide à réaliser vos rêves. Vous souhaitez acquérir un terrain, concevoir votre plan architectural, construire votre maison, trouver une équipe ouvrière spécialisée, équiper votre maison ou bureau, trouver des matériaux de construction, décorer votre intérieur ou même gérer les démarches administratives. Le groupe Mac Building est là pour vous accompagner la concrétisation de votre projet. Vous estimez ne pas avoir les possibilité de payer en plusieurs échéances et de devenir propriétaire dès aujourd'hui. Pour plus d'informations, contactez le 77 550 11 19 77 550 11 19. C'est Luc Koipare. J'ai beau d'un beat, ok, gog, so, so, Kooku Baay alhamdulillahi alladhi aghnaa yéen sama mbokki tapissier yi mbokki cordonnier yi yéen ñi bëgg bagage yu baax yéen ñi di wër matériel bu dëgër am taar lu ngeen ci defar du gaaw a xar seen naqar nee na kër gi xéewal waa kër xaadimu rasul nekk fii ci Médina rue 25 angle 24 Modou Lay Diop et frère ñoom mën ci jaay bépp jumtukaay bu tapissier bi di soxla wala cordonnier dañuy jaay bépp xeetu toile eskay simili cuir velours LC Meka ak bépp accessoire fauteuil dañuy jaay ay pieds ci ay modèles yu wuute qualité bu dëgër repose-tête sangal bande bouton cristal appareil agrafe bal agrafe ba ci ay protocole col pompe am nañu ko fàttewuñu benn yoon ay nappe de table yu rafet lool ci qualité yu baax base auto mën ngeen ko amee fii ci kër ji xéwal base pente bépp dimension bu ngeen ci soxla ak qualité bu dëgër mën ngeen koo fekk fii ci kër ji xéwal bokk yi woo leen ñu gaaw ci 76 330 55 10 ngeen laajte du Lay Diop wala 78 382 67 68 ngeen laajte Ibrahima Diop gàngu naa yi jaay lu baax ci njëg yu neex kana ca faax moo di kër gi xéwal waa kër Xaadimu Rasul Médina rue 25 angle 24 kër gi xéwal suñu kër gi ñuy xéwaloo. UP Baby une grande bambinerie bambinerie bu mag a mag a mag a mag a mag lépp loo soxla pour sa bébé ah mbokk yi balaa bébé bee juddu nga jënd bu bébé bi juddoo nga jënd bu amee un an ñu defal la affaire bu amee deux ans nu xale bi màggee lépp la ñu am lépp loo soxla même pour yaayu bébé bi ñu ngi nekk rond-point Jet d'eau à côté de la station Ola berceau youpla transat vêtements pour nouveau-né 100 pour cent coton cadeau de naissance paanu njëkk njëkke wala turandoo <laughs> le turandoo bay jënd di ko yóbbu nga xam ne turandoo ba am maanaa valise de maternité pour bébé et maman appelez au 77 243 70 70 77 243 70 70 youpi baby rond-point jet d'eau à côté de la station Ola la bambinerie de référence